ndax Macky Sall faaw ñu jàmmarloog moom loolu mënul ñàkk loolu moo ñu gën a yitteel fi mu nii liste yi ñu fi annulé bëri na te du ay liste benn dëkk du liste benn département waaye liste nationale lépp ñu boole ko annulé ko ne sa parrainage matul pourtant coow li tollul nii de ñu ne benn liste yeewi askan wi sur 53 xaw ma wala boo ci boole list national donte list bu am solo la ndax mooy liste Ndakaaru waaye dañu ne benn listu yeewu askan wi la Macky bu bëgg a naxsaayal coow li ne gàññ gàññ gàññ loolu day firnde benn mbir mooy fi yeewu askan wi tollu réew mi kon képp kuy leader ci yeewu askan wi ak lu la mën a naqari The fam fu muy toll su def fàtte nga askan wi su def fàtte nga askan wi xa xama xama lan mo la andi won ci wi Askan Wi gem na ni bu doon Benno Bokk la ciow li du toll ni kon lolu firnde la sal bi lañu dajé gën sa def na warna def 15 jours ci gannaaw ñu réñu ñu né légui dañu wara tab biñu waxtané Cheikh Tidiane way wax fatel nako légui dañu néwon woon nañu fexe ba 70 des leaders nañu dem ci département yi parce que élection bi ci département yi la du ci liste nationale li gëna yomb ci élection législative moy nga ne maa ngi laqatu ci liste nationale dañ ma fexé ba def ma place bu may député waaye élection bi ci liste nationale ci liste départementale yi lañ koy gagné. bañ na ba mom biñu démé ba cho am ci naka lañuy def ba joxé sept députés yu ñu wara motali bi cho li amé dafa dem jël ay députés ci liste nationale yobbu ko ci liste départementale parce que fofu la enjeu bi te mu leer ni mom limu am ci ay kangam lay tab ci liste ci département yi ba paré sàq xaalisu réew mi ay milliards jox leen dem leen ngeen gàñe ci kon ñun bu lay ay leader lañu am ay leader ki ne man maangi ngi dëkk département sangam ki ne maangi ngi dëkk département sangam même soo gañewul sax mais leader bu warna war am sañ-sañu wu biñ ñëwé fi ci salle bi leader yépp né liste nationale la bëgg ne ba mu dess ñett wala ñent defe naa la ak euh, Abdou Karim Fall babakar Diop defe naa euh, ak. Euh, est-ce que du mettre Moussa Diop wóoruma en tout cas il na a des mu tout tuuti yu ne moom ñoom dinañ dem sen département ñeneen ñep liste nationale ci lo xamné 30 leaders la pour 53 postes ci liste nationale bi bu 25 góor lañu bo dugalee parité ñom rek ma légui 50 dem na Té ñep xam ñi liste nationale nak kenn mënu fa am 50 du Benno du du yewi du kenn ku mun 50 ci liste nationale à moins que nga gagné à 90 gisuma ko mun a am loolu ñu solution mu am ku def proposition su doyen la ne lii mun nañ fi fanaan solution te ñetti fan pour suis policy. maa ngi proposé comme Khalifa Abapakar sal du candidat te mooy président conférence des leaders nañ ko mu les investitures te mu am eh, MRDS neman ne man d'accord na partiellement d'accord na ñu jox ko mu dem préparer liste yi mais su paré daf koy wat fi ñu xol bu ñu déposer bu d'accordul ba ki discuter Khalifa Sall ne len confiance day mat wala du mat su ngeen ma joxé dangeen ngeen may bàyyi ma dem def liste déposé waaye su dee ngeen ma war a delloo si fii ma bàyyi leen ak liste yi ngeen def ko ñu def tour de table mujj gi ñëpp dëppoo ni jox nañ ko pour mu defi liste yi réserve bi ñu levé ko mu ne la nag su ma koy def dinaa consulter ñenn ci leader yi loolu moo fi amoon fii kon nit buñ ko waxee loolu mu dem defar liste déposé liste ba génn méngoowul ak yaakaaru kenn ku ne parce que nag ala xaal mënoo fi woon fexe ba def liste bu bu kontaanloo ñëpp mënul ne te loolu ñëpp xaara ba ba investiture yi génn ci ñeneen xam nga ñëpp a ngi nëbb seen investiture man def fi ma toog nii gisaguma suñuy liste départementale defe naa Cheikh Tidiane gisagu ko liste nationale bi ko gars yi fuiteloo mu génn ci laa woo Déthié Fall ne ko je voir la liste national ba xam ndax lii ma gis nii ak li ñu jàllale ci biti benn ba ba benn bi la gisaguma liste départementale waaye liste yi bu génnee gisuma fan la coow di mucce peut-être ñoo xam ne ñoom amuñu problème mu surcharge dañuy wër sax ay nit ñuy dugal ñooñu duñu am problème boobu mais ku fi am coalition bu mag bu liste yi génnee coow li ne gàñ kon lolo dafa and investiture kenn ne am nga ci investiture dañ koy wax ndax man Khalifa Sall consulter. na ma lu bëri lu ko waxoon lu waxante woon ci liste bi ma leader Sangam, je n'ai rien contre au contraire beaucoup d'admiration la am ci intellectuellement waye warul nek ci liste bi ndax biñu démé élection locale dafa né d'accord ak ñun parce que investiruñu ko mu génn daadi dem ci benen liste kon li am tay du mënul nous suñu duggal ko ci liste bi ñi fi seen bop ñu sandi leen feulé ci ci all ba kon warul sax liste bi ensuite ñi fi nekkoon di sonn parce que tamit dañuy waxante dëgg Cheikh Tidiane wax na ko léegi gis nga investiture lu jafe la parce que bëgg nañ ko dégg bëgguñu ko dégg coalition bu ne dafa am parti yoo xam ne yàlla moo dogal ni ñooñu ñoo ëpp doole yéen ñëpp gis ngeen li xew ci élection locale yi bëri na foo xam ne mënoon nañ ko gagner mais on l'a perdu parce qu'on a voulu faire des équilibres militant ne la lii ci parce que qui xamuñu ko mosuñu ko gis fi ngeen xëy nañu ngeen mais on a fait des des efforts parce que ànd bune ne di nga essayer xam xool loo kon parti yi nga xam ne tey tirer la coalition parce que c'est ça l'ol nak yalla ko def buñuy def investiture dañ leen wara sedd dañ leen wara jox lo xamne dina mëna sax tax ñu layo ba appareil bi top pour parce que appareil bi su toppul du am dara tous duñ ko am loolu jaadu on dit que telle telle personne n'est même pas leader on l'a placé avant tel ou tel autre mais c'est c'est ben appareil la bokk bo xamné ne rôle bi muy joué ci bir mbir mi c'est un rôle central pour ñu mëna am résultat bi ñu bëgg te malgré tout du am lu ñu bëgg mukk parce que kenn ku ne ci ñun say partenaire ngi bëgg tass

loolu rek moy ciowli man la sudul man parti bi sama pression yoy souvent les leaders di subir moy andi yu beure beure te ko gis après mais comment trouver le juste équilibre muy exercice bu jafé jafé jafé